bismillahi irrahmaaniirrahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi ci ndigalul cheikh muntaxa la ñuy nuyoo ñëpp di siyaare ñëpp di ndokkeel ñëpp sëriñ bi yónni nooy kàddu de wax ne mi nuyu bokki taalibe di di leen feddalil ko rek sëriñ Tuubaa gi mu sëq ak ñëpp sëriñ bi wax ne xam na ne mu nekk day namm na taalibe lool taalibe yi itam namm nañ ko lool te ànd ak ñoom liggéey bi sëriñ bi rek mooy yitteem ko bokk xamandoo lii fi suñ boroom jaarale tam nekk fi daaw ba ñu di ko wooyee mbas mi muy wér jàngoro jaar jàngoro ji nag daa ba mu fi egsee jël na ci ay matuwaay li mu ci war a jël yëpp ca saayir ak ci baatin kon nag xam na ne ca saasa la ci daa def ñaar téeméeri million muy saayir si waxoon itam ne ñi yor wàllu kër docteur yi di saytu wér wér doomu aadama santaane nañ koy sàmmonte ak moom loolu weesuwul ni mu ko waxee takk tàmbaleeku ci takk masque yi gis ñëpp mu di ko takk tàmbaleeku ci raxas loxo yi ñu gis ñëpp mu di ko def ba ci dandante bi loolu taxoon na daaw ba mbas mi ñëwee màggal yëpp lu mel ne màggalu Kazu Rajab màggalu daal monti ñu soppi woon defin wa wàññi xumbin wa ba ñu àggee koor ga ñu wàññi woon defin wa soppi ko nañ daan joxe ndogu ñu soppi ko lépp di bàyyi jàngoro ji xel bañ ci kori ga ba ñuy dem dem dem ba mu yàgg mel na jàngoro ji daaw am woyof am ci xew-xew yoo xam ne ba mu xewee mais yowaatu nañu as lëf ci xaw koo yokk tuuti ba ñu weesoo loolu ñu demaat demaat ba weesu Màggal Tuubaa weesu gàmmu mel na jàngoro ji daa yéegaat ah sëñ mi ne kon wattandikuwaat jotaat na nañ ko defoon daaw ba muy door a song te amoon doole mattandikuwaat gi nag kon mooy gën a soññewaat ci liñ ci war a def jëmm li ñuy wax mesures barrières yi sa sëñ bi waxoon na ci wax woon na ci Cheikh Bass jamono yee ci ginnaaw it mu wax la woon mi kàddu yoo xam ne daa waxoon ne daayir yi ak siyaar yi nañ ko taxawal ba mbas mi wàccaat mu waxoon ne weeru janvier wi amoon na yéene nañ mujjandiku bu weeru tolloo ci dee bu fekkee mu wàcc ñu tàmbaliwaat yàlla mi dogal nag moo